noonu yéesu fees ak xel mu sell mi jóge dexu yurdaan xelum yàlla mi yóbbu ko ca màndiŋ ma mu nekk fa ñeent fukki fan jànkonte ak fiiri seytaane lekkul woon dara ci fan yooya te ginnaaw gi mu xiif noonu seytaane ne ko boo dee doomu yàlla santal doj wi mu nekk mburu yéesu tontu ko ne mbind mi nee na nit du dunde mburu rekk seytaane yóbbu na ko fu kawe ci xefa xippi mu won ko réew yi àddina sépp ne ko dinaa la jox bépp sañ nguur yi ak seen ndam ndaxte jebal nañu ma ko te ku ma laa koy jox kon boo ma màggalee dinga moom lépp yéesu tontu ko ne mbind mi nee nanga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rekk seytaane yóbbu na ko yerusalem teg ko ci njobaxtalu kër yàlla ga ne ko boo dee doomu yàlla tëbal jëm ci suuf ndaxte mbind mi nee na dina jox ay malaakaam ndigal ci sa mbir ñu sàmm la ñu la leewu ci seeni loxo ngir nga bañ a fakastalu ciw doj yéesu tontu ko ne bind nañu ne bul diingat yàlla sa boroom bi mu ko lalalee fiiram yi mu am yépp seytaane daldi sori yéesu di xaar yeneen jamono yéesu dellu diwaanu galile fees ak dooley xelum yàlla te turam siiw ca diwaan booba bépp muy jàngale ci seeni jàngu te ñépp di ko tagg yéesu dem nasaret fa mu yaroo te ca bisu noflaay ba mu dugg ca jàngu ba ni mu ko daan defe noonu mu taxaw ngir jàngal mbooloo mi ñu jox ko téereb yonent yàlla isaayi bi mu ko ubbee mu gis barab ba ñu bind aaya yi xelum boroom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xabaar bu baax bi dafa maa yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi bi mu jàngee aaya yooyu ba noppi mu ub téere bi delloo ko ki koy denc toog ñépp ña nekkoon ca jàngu ba dekk koy bët noonu mu daldi ne tey jii loolu mbind mi wax mat na bi ngeen koy déglu ñépp di seede lu rafet ci yeesu di waaru ci wax ju neex ji mu doon yégle ñu naan ndax kii du doomu yuusufa mu daldi leen ne xam naa ni dingeen ma ne fajkat bi fajar sa bopp yëg nanu li xew kaparnayom defal lu ni mel fii ci réew mi nga dëkk mu tegaat ca ne ci dëgg maa ngi leen koy wax ab yonent kenn du ko teral ca réewam ci digg maa ngi leen koy wax ci jamonoy Iliyaas bi mu tawul lu mat ñetti at ak genn wàll te xiif bu metti am ci réew mépp amoon na ca Israyel jigéen yu bari yu seen jëkkër faatu moo ne yàlla yónniwul Iliyaas ci kenn ci ñoom waaye mu yebal ko ci jigéen ju jëkkëram faatu ju dëkk Sarepta ca wetu Sidon te amoon na ca Israyel ca jamono yonent yàlla alisa ay nit ñu bari ñu gaana waaye fajul ci kenn ku dul naamaan mi dëkkoon réewu siri bi ñu déggee wax yooya ñépp ña nekkoon ca jàngu ba daldi fees ak mer noonu ñu jóg génne ko dëkk ba yóbbu ko ca mbartalum tund wañu sanc seen dëkk ngir bëmax ko ci suuf waaye moom mu jaar ci seen biir dem yoonam ginnaaw loolu yéesu dem kaparnayom ab dëkk ci diwaanu galile mu jàngal leen ca bésu noflaay ba ñu waaru ci njàngaleem ndaxte dafa wax ak sañ-sañ noonu am na ci jàngu bi nit ku rab jàpp mu daldi xaacu ne moo yow yeesu nasaret loo nuy fexeel ndax danga ñëw ngir alak nu xam naa la yaa di aji sell li jóge ci yàlla waaye yeesu gëdd ko naan noppil te génn ci moom noonu rab wi daaneel nit ki ci suuf ci kanamu ñépp daldi génn ci moom te gaañu ko bi loolu amee ñépp waaru ñuy waxante ci seen biir naan cey ji wax ci sañ-sañ ak doole lay sant rab yi ñu daldi génn noonu turam siiw ci diiwaan bépp bi jógee ci jàngu bi yeesu dafa dem kër simon gorob simon bu jigéen dafa feebar ba yaram wi tàng lool ñu naan yéesu mu dimbali leen ci mu randu si tiim ko gëddu tàngoor wi mu dem noonu tàngoor wi wàcc soxna si jóg ca saasa di leen toppatoo bi jant sowee ñu indil yeesu ñi wopp ñépp ak ay jàngoro yu wuute kenn ku nekk mu teg la loxo wéral la te it ay rab di génn ca nit ña te di yuuxu naan yaay doomu yàlla noonu mu gëdd leen te mayu leen ñu wax dara ndaxte xam nañu ne mooy almasi bi njël gu jëkk yeesu génn dem ca barab bu wéet mbooloo ma di ko seet bi ñu ko gisee ñu koy wute téye ngir bañ mu dem waaye mu ne leen dama war a dem ci yeneen dëkk yi ngir yégle xabaar bu baax bi ci nguuru yàlla ndaxte looloo tax ñu yónni ma noonu mu dem di waare ci jàngu ya ci réewu yawut ya